waxtaan ak sa papa mu may wax sa problème ak Lamine ni dangeen doon def appel vidéo nga gis dàll ci néegam ma lay xamal ni sëy du benn fan te du ñaari fan comme duggagoo si na nga def ndànk ndaxte kat Lamine dafa bàyyi ñëpp taamul na yow la bëgg. yaay danga wax sa biir wax léegi nga ne sëy du benn fan du ñaari fan. looloo waral nag ma war a bu baax balaa maa dugg si lan la. waaw Fatima. waaw naan ko. yow ci la noonu. koor gi 15 jours presque dara duggut dara génnut instant bi may wax ak yow ma toog nii bu ndogoo sax amu ko. kon yooyu li may xalaat ñaa koy xalaat noonu. bu baax xale yu góor yi de amuñu benn benn njëriñ man de damaa joom fii ma. la joomam. xale yu góor yi waxoon naa la xale yu góor yi jël leen tegale ne te nga jàpp ci paa yi man de am naa paa boo xamante ne nii fu ma jàppee bu ma ko wari ji man de fii ma ne ku ma wow mu ko dem waaye nag ku dem yaay ñëwaat rek. <laughs> bañ ñëwaat bàyyi leen événement moom sax événement nii la korite buy jot si wala tabaski buy waaj a jot si koo ci woo ko jot. man de fii ah, paa bee. moom laay jéem a woowaat ndax xam nga koo xam ne connexion rek boo ko laajoon 35000 lay dugal waxuma la nag affaire kon de yow yaa ma man de sama copain yi ko ñàkk jom yàlla am na jaam lañ mel ma laaj instant yi te korité si lu ma leen ah, dama ne la jàppal ci paa yi ngay tiital <laughs> man de sama paa bi amoon na ma njariñ moom xam naa ne incha allah <laughs> dina ma defal li ma bëgg de gis nga lan maa ko yar xam naa ay jikkoom tamit man maa la jur yow mii xam sa jikkoom Lamine xamee ma ko caaxaan te xamee ma ko ay mbirum jigéen su ma sañoon daal nga def ndànk comme duggagoo. yaay bu fàttali nit dafa la nëb te jukko borom pax nit buy dugg ci yow da lay woon bu mu lay woon ak bu la sëyee jukko bu mu lay woon du benn. nit dafa lëndëm Lamine mënoo ko xam tant que sëyu moom. man daal lu ma doon conseillé mooy nga def ndànk defal ndànk parce que mënoo def appel vidéo gis daal rek ne am na lu xew defal ndànk daal loolu laa lay conseillé dama góorgóorlu bu baax dangaa nekk ci yoon gis nga boo nekkee jigéen nekk ndaw bul yaakaar ni xër-xër mooy régler mbir yi. incha naa si bàyyi xel bu baax. dama ko xool mu dute na baax nag ndaxte moom la ñuy ndogoo barki démb sa dute bi ñoroo xam ngeen ah. naa fi ma koy jaar ma waaye yooyu doo may baax dinaa la may yóbbul wax dara ah, ba sama ginnaaw fu ma la jaarloo boo fa jaari waaw jàmm rek nga am damaa xam ni instant yi korité baa ngi jub si may war a envoyé sama yaay xaalis yoru ma dërëm dërëm dëkk ba ren na ni ko ñëpp di waaj ñun ñu toog ne këm waaw toppal sama ginnaaw yow may ma paasa comme ça ma mën a am gerefaas bu gudd damaa sonn ci kub kaare mooy def man mi war a jàppal sama njëñ ñi mu ngi nii ràppa ràpp bay bëgga dee yow xool sama téléphone bi instant yi douze laa maa ngi ci witt yi dama kaa tey ba sama loxo yi fut mooy def topp sama ginnaaw bu soobee yàlla bu ma la mayee paa waaw li nga bëgg rek mooy am incha allah baax na may si ginnaaw yow daal jàpp te instant yi moom yàgg nañu daal bàyyi na ci jàmm bu baax alhamdulilah waaw mu ngi fi mu ngi ci jàmm bu baax a baax ak waa kër gi naka Italie am alhamdulilah laa di dégg waaw waaw waaw loolu dëgg la dëgg la liggéey bi de moom maa desali ngeen ci nekkee moom xam naa <laughs> bi loolu la noonu la ngeen gën a góorgóorlu nag bu baax waaw ndax ku jógee réew ak réew moom dangaa war a góorgóorlu ba li la indi nga def ko waaw mooy fi mooy si jàmm bu baax a baax Sabel de doon naa waxtaan ak moom barki démb waaw mooy xamal ne doon ngeen dégg sax waaw waaye nag damaa wax lu xaw a doy waar mu ne ma xam mu wax ak yow dafa gis ay daalu jigéen sa biir nag mu jàpp ko nag ndax euh, xam nga xale yi rek ñoom moom bu ñu commencé bëggante waaw day day xaw kii daal <laughs> waaw mu xamal ne daal ay daalu jigéen la gis ca néeg te loolu dalul xelam te dal ni ko yow kese yaa nekk sa biir moom ah waaw man bi ma waxee loolu laa ko wax nee naa ko kat euh, Lamine moom wax dëgg maa ko yar a baax waaye nag euh, ngeen góorgóorlu bu baax ndax euh, am na loo xamante ni xamee wuñ la ko te buñ la ko mos bul ñëw ba foofu di sànq sa jikko ndax man xam naa bu baax nga yokk ko góorgóorlu ndax loolu moom mer na ci bu baax a baax a baax waaye waxtaan naa ak moom te wax naa yaay nit mu gën a waxtaan ak moom waaw yow daal laay ñaax fi mu toll nii nga gën a yokk góorgóorlu waaw waaw baax na comme que noonu noonu nga loolu la loolu kese la yàlla baax na gëm naa bu baax a baax ok jërëjëf def jërëjëf dinañ ko dégg incha allah jërëjëf ay waay am na daal moo bëri coono